door benn parti politique tey kay tey tey lañ fi ñëw pour tàmbali ko bés ni tey ah. parti bi mu ngi tudd PL parti libéral senegal mais woote bi mi ngi tudd appel de Thialaga appel de Thialaga léegi mooy woote Thialaga moo taxoon ñu ñëw fi ndem yàlla def na ne Thialaga yaa fa féetee mag ci ñi fi des ci waa Thialaga te sunu maam yore tamit nekk doomu calaada moo tax ñu ñëw fii ngir feddali coloré ak sàkku si ñaan ñun ñu dañu ñëw tey ci sunu maam Yoro Gueye doon ko tàllal sunu loxo di ko wax li ñuy tàmbali ngir mu ñaanal ñu si mu mën a jëm ca kanam loolu moo nekkoon sunu ay tànk. am na ñu bëri ñu ngi dem fii maanaam waaye nag soo xamee li nga xam ne loolu la yàlla dafa rek da nga yokk sant yàlla fii soo ñëwee fii ñëw nga sa kër soo ñëwul fii ñëw nga sa kër te wax dëgg yàlla am na li nga xam ne xam naa ko ci biir ci biir li nga xam ne kam danaa ko xam ci biir dëkk bi boobu am naa li ma ci xam waaye nag mag digg na waaye nag maa ngi sant yàlla li nga xam ne nag maanaam alhamdulilahi rabbil alamin sukran lillahi euh, danaa ko mun a wax lépp li nga xam ne li nga indi fi insa rabbul izzati bu fekkente ne mu ngi jëm ci maanaam li nga xam ne mu ngi aju ci yàlla ñaan ci ñaan nga déglu bu baax ci ñaan insa allah li ma yàlla man maanaam dinaa dinaa la yonent dafa ne maanaam sa mbokk jullit ni si ñoo xamul waaye ki nga xam ne yéen a bokkandi ak bàyyi sax maanaam jullit yi ñoo gën a bokk sa bu inna mal mu ixwatun fa aslihu bayna axawaykum jullit yëpp mbokk lañu waaye soo ñaanalee sa mbokk jullit maanaam soo xamee soo xamul yàlla nangu nañu boobu ñaan yàlla na ko wa amaana xam nga taarix xam nga léegi def nga appel waaye nag yaa ngi koy tuddee soo tuddee calaaga foofu nga bokk soo tuddul calaaga foofu nga bokk loolu la yàlla dogal loolu la am nak li nga xam ne asaas bi asaas bi mooy man maanaam fi nga xam ne fii nga sokkee kii kii mooy nangam kii ma kooku maanaam asaas la maanaam comme ni ngeen koy faral di waxee kii moo jur sama papa kii moo jur sama papa kii maanaam sama yaay ak kii ñoo bokkandi ak bay xam nga loolu mooy kii am na li nga xam ne maanaam loolu sóoriwuma ci loolu bu dee ci affaire dëkk bi nag mm-hmm. kooku am soo waxee tan maanaam maanaam surtout maanaam yer alhaji yero gueyi calaga doɗin maanaam jomata ñoom ñëpp xam nañu maanaam foofu la nekkoon waaye waxtu bi nga xam ne maanaam li nga xam ne noonu noonu laa ko war a xamee nga déglu bu baax nga xam ni noonu laa ko war a xamee boobu ñoom ñoo jëkk a ñëw fii maanaam ci Dakar moom ak Paati Sarr alhaji yero gueyi ak Paati Sarr yàgg nañu fi ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi jóge ci Calaga ci kiram bi foofu la ñu doon dëkk te bi may ñëw seen kër foofu ci rue 15 nga déglu fekk naa foofu na soob Suwaadu Gueye laa gën a xam ak Muxtaar yow man Muxtaar mooy sama papa Muxtaar mooy sama navigateur bi ki doon def waaw waaw navigateur bi waaw kooku mooy sama papa waaw moo ma jur ak Seynabou ñii ñetti la ki tudd Suwaadu Gueye ak Seynabou ak Muxtaar ñii ñaa ñii laa gën a xam xam nga boobu at yi am. Hmm. maa am boobu maa ngi am fukki at xam hmm. nga boobu yàgg na hmm? xam nga at yi ma am tey ku ma nekk nii at yi am tey nii nii. la toll. waaw dinaa la ko wax bi ma boobu am nekk nii lee nii am naa ci juróom-ñeent fukki at. 93 ans mooy mooy maanaam. Hmm? Hmm? ak ñett am naa ko kooku yàgg na am na ñi nga xam ne soo demee ci biir néeg bi sax soo leen mën mënu mënuñu laa tontu sax te maa ji maa ji jiite maa ji jiite bi maa ji maa bi maa koy jiite alhamdulilah. alhaji Seydou Nour Tall ànd na ak moom ñaari fukki moom la bëggoon laaj sa diggante ba foofu foofu xam nga ñoom madaana kooku mooy seen set am na li nga xam ne ñi ma gën a féete loolu bi may am kër bi Thierno Seydou ñëw na fii ñetti yoon dama mën na ko wax mën na bëri wax loolu gis nga keroog ma ne kii Alhaji Malick mu ñëw fii kontaan na waaye keroog bu mu jëkkee ñëw mu demee ñun maa ko moo jëndee mu ngi xamante ak suñu sëriñ bi maanaam nuur alhaji Seydou Nour Tall ñi nga xam ne ñoo bokkoon ak moom foofu ànd ak moom juróom-ñett man ak waaye li nga xam ne maanaam jabar bi moo ko may Madine Tall bi ma ñëwee fii ci kenn fii ci Pikine maa ngi ñëw fii 20 février 71 20 février 71 hatta yow mi na haada maanaam am naa fii ñeen fukki at xam nga man mag la gis nga seen jamono bi boobu tey da ngaa fekk maanaam ñaari fukki góor wala fukki góor ñu génn kàcc bi ñoo bokkandi ak baay mag li mu wax rek ñëpp foofu la ñuy topp bokkal ak jamono bii léegi di ko waral rek te xale yii léegi ñu lu ñuy xam ci say sax seen waajur xamul lool ay mooy li yàlla wax tilka la yaamunu daawiluha bayna naasi wa li ya'lama allahu alladina amanu lu lee moo tax man man li may wax xam naa ko àndal naa ak Thierno Seydou te xam naa ne am na li nga xam ne xam naa ko ci Thierno wax bi moo bëri dem na fale dugg na fale waaye man am na li yenn yi daañu ko wax yenn yi kenn du ko wax anan yàlla def wax ji anan fulaar ana naan am na li nga xam ne dangay wax am na li nga xam ne loolu kenn du ko loolu moo tax man yaakaar naa kuy sant yàlla man lay dimbali. alhamdulilah waaye jamono bii nag seen jamono bii laajul loolu. déedéet ngay am lan wax bu bari. te yàlla may la nga am tuuti xaalis nga am wóolo yàlla nag moo xam waaye danaa rafet ci njort. rafet naa njort waaye boo gisee loolu man ma wax loolu man mag la moo tax nit soo jàngee da ngaa war a jàng adduna tuuti xam-xam fii kooku beneen affaire la. xam-xam bi kooku beneen affaire la di dégg waaye nag su fekkente ne yaa ngi wax maanaam war ngaa jàng àdduna nga xam ci na tuuti man ku dëkk ci biir mi mu ñeen fukki at ak ah, du ñeen fukki fan hmm? am na li ma xam ci waaye képp koo xam ne ñëw na fi soo leen waaw imaamu Sow maanaam la dina wax la man de xam naa dinaa jiitu loolu parce que wax bi du bari wala ñu dem ngénte wala am ku gaañu ma dem foofu rek ma jeex soo ñëwee nag comme ni Alhaji Malick ñëwee ma ne man waaw ne ko su dinaa ko waxkat su fekkente amee du man yàlla moo ko def waaye du man de koo yaakaar sax yàlla la yaakaar. léegi kay ci lañu xamante xame boo xamante ni vraiment man rëcciwu ma ko mu nekk xame boo xamante ni yàlla def bi nga ñëwee Càllaaga kont ñoom Càllaaga yëpp kontaan nañu yaakaar naa ne tey keroog bu ñu fa ñëwee war nañu dëkk bi yëpp fu nekk dem nañ fa ba dañu ñëwaat ñëwaat ba ci ziar bi. après nga waxtaan ak Thierno yàlla def ziyaare bi jeex nga ñëwaat bu loolu weesoo nag moom li mu xam tey ci wàllu seen waa kër yaakaar naa ci calaaga moom rek moo ko xam man musuma xam ni xam na sa papa wala mu xam sa yaay wala mu xam sa maam man musuma ko xam kon donk nag nit bu fekkee ne da nga ñëw si moom mu wax la sa bopp kooku kooku kooku amoo peem te kooku munoo ko maanaam da yaakaar ne xëy na maanaam maanaam daal kii fan la ma xamee wala la nekkoon xam nga loolu lu ye lu lu kéemtaane la. waaw lu kéemtaane la. waaw. waaw. Moxtaar Ubeyni voilà. waaw bookar def nag loo xam ne geste bu rafet. nga dem ba waaja def dara. nga ni ah man de xaaral ma seeti sama waa dëkk. xaaral ma ñëw seeti magu dëkk bi kontaan na ci loolu. parce que tamit calaaga koo ci wax Yero Gueye xam na ko ba wax nii li nga xam ne garab bi sax si kër gi sump gi xam nga loolu voilà léegi nag mu nekk loo xamante ni nag ñun mbégte la si ñun ñun mbégte la si ñun amaana wax na fi wax benn wax boo xamante ni maanaam bi nga première bi nga ñëwee fii wax na ci biir wax mu ne bu fekkoon da nga fi daan ñëw xam na maanaam mooy loolu moo wane ne gëj nga fi xam nga wax da nga koy dëgg xam nga loolu wane na gëj nga fi léegi nag voilà loolu nag ci loolu yëpp nag yaakaar naa ne affaire bi yaakaar naa ne yaa wax ji fëriñ ko laay na dina si def ñaanam loolu nag ñun euh, Alaji Malick man toujours gëj nañoo dëggante mais toujours sama xel a ngi ci yow sama xel ngi ci yow maanaam maa ngi dëgg jëf ji baax yi ngay def ci biir dëkk bi ba ci 72 heures bi waroon naa dem ma yàlla def na man booy ñëw nañ ba sama kër fii wax ma ne ñu ne yow lañ ko pare ne loolu nag ma kontaan ci loolu saa yoo fa ñëwee maanaam dafa mel na kër gi sa kër suuf si sa suuf nag maa ngi leen di sant di leen gërëm wax dëgg ci kontaan si sa ñëw fii daal. mooy maa ngi maa ngi sant yàlla di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. di am lu may leeralaat ci sama diggante ak Thierno Nourou di ko sant di ko gërëm ndax man rue foofu laa juddoo foofu laa yaro foofu laa màggee ba génn dem bitim réew ma dem Espagne su ma compté li ma fa def ak léegi di dem ak ñëw mët na 32 ans maa ngi tukki ba daw jéeg ma dem Paris am ku ma fa dajal mu yore di def transport mu yóbbu ma may dem sama hôtel ñuy waxtaan ma koy tooñ na ko yow xanaa alpulaar nga mu ne ma waaw ma ko fan nga dëkk mu wax ma dëkkam ma ne ko man de calaaga laa dëkk waaye musuma fa dem sama maam sama pap ñëpp damay dégg rek ñuy wax calaaga calaaga mais mosuma fa dem te xaw ma ko mun ne ma de Cerno Nuuru laa àndal bu Cheikh Omar Foutiou maa ko déposé ci hôtelam te moom waa calaaga la man ne ko ah ma ne kooku de bëgg naa ko xam mu wàccee ma si hôtel bu ñuy wax George V parce que foofu laa daloon ma toog ci hôtel bi ndeke moom dem na ba wax ceer Thierno ne ko am na ku ma xamanteel waa calaaga la Thierno ne ko kooku de duma fekk si man maa koy fekki <laughs> dama toog sama hôtel <laughs> ceer Thierno Nuuru ñëw waa ji woo ma ma wàcc ma gis Thierno nuyonteeg moom ñu waxtaan mu ne ma biñ ma waxee ne ma am na doomu calaaga bu fi nekk loolu moo tax mm. man ma ñëw fekk si la ndax ñu man ku dëkk calaaga du du ma du jug di ma fekk man maay jug di ko fekk ndax man calaaga mooy sama lépp ñu waxtaan ba mu wax ma ne ma am na gàmm gu mu fay def at bu jot ziyaare bi ma ne ko ren de su yàlla dogalee mu fekk ma Sénégal dinaa ñëw yàlla dogal mu fekk ma Sénégal ma jógee fii def caravane ànd ak sama ay mbokk ñu dem calaaga kérok bima démé demee calaaga kontaan naa trop ndax euh, bima len gissé rek mhm. dama xamni ñi sama ay mbokk papa lañ ku ci nek amna ku ngay nuróol ci sama sama famille ñu jël ci fi mam Cheikh Omar julli won ci wet bi ah. ñu yëkëti 60 sur 60 dagal mako ko li ma lii sa cëru maam la yow lañ ko jox iliman bi ne ma fii fi gan fi sa dëkku la 72 heures yi ñëwaat waa calaaga yëpp dajale tuddee ma ko mm. ma jógewaat foofu demaat calaaga léegi diggante bi rattax na noo xam ne étudiants yi lu ñu xewle maay dem université nekk seen mm. parrain bis bu nekk ñu ngi may woo lu ñu soxla ci man la ñu ñëw ba retrouver naa daal li nga xam ne moom laa doon wër bi ma ko amee tamit lépp lu ma am si lu baax calaaga laa koy tuddee delloo si waat njukkal waa calaaga mm. ndax macha allah ay ay nit yu baax lañu ndax bu ma demoon fekk sama ay mbokku maam nu ñu munti mel tamit mm-hmm. noonu laay àndaa ñoom waaye ba ma demee fekk naa ñoom ñëpp ay sëriñ lañ xamuñu lu dul jaamu yàlla ak def lu baax loolu daf ma gën a renforcer mm-hmm. ma gën a dolli fas jom te mm-hmm. xam ne man dara waruma def lu dul def lu baax leen mooy war a jaayante mooy maa baax maa la gën a baax man foofu rek laa war a xëccoo leneen mën naa ko bàyyi ku ndax la ma fekk sama ay maam doon ko def mm. ak la ma fekk ñañ fa bàyyi di ko def mm. loolu man si loolu laa nekk te si laa fas yéene nekk moo tax tey sama tànk yi daal dama bëgg lool lool lool lool ci ñëw bi maa ngi lay dénkaat sama bopp di la wax ne daal mel na ne maam yoro laa ñëw seet si mel na ne maam yoro laa gis mel na ne sa sët tamit nga gis lii may jugmal tamit nga ñaanal ma ba benn gàllankoor duñ ko am ba benn pexe noon du ñu mën a dal suñu kaw ba li ñu bëgg tamit ñu am ko ni ñu ko bëggee parti bi nekk parti bu mucc ayib nekk parti boo xam ne njariñ moo koy tax a jug defar réew mi lépp luy yàq duñ ci bokk alhamdulilahi rabbi alamin alhamdulilahi taalibe mm-hmm. ak tànk bi nga xamante ni vraiment euh, kër mu ñëw ci kër mbokkam mm-hmm. mu ñëw ci këram mu ñëw ci këram ci kër mbokkam mm-hmm. di ñëwaat tamit beneen tànk boo xamante ni mu am li mu bugg a yëkkati maanaam bugg a def loo xamante ni maanaam benn parti parti boo xamante ni bi nag maanaam am na nu mu ko tuddee mais parti bi pour yëkkati waay waa calaaga la pour yëkkati waay waa calaaga la calaaga nag buñ ko waxee calaaga nag moom comme que calaaga la dëkk kon donc nag euh, góor gi di nekk mu nekk maamam xam pappam xam maamam xam papam xam yaam xam famiyam yëpp di nekk tamit doomu calaaga kon donc mu ñëw fii ci kër gi mu def départ bi ci kër gi lépp lu mun mu def mu jëm sakku ñaan ci kër gi mu lépp li nga xamante ni li mu yaakaar ak ci li nga xamante ni ci ci parti bi ak li mu yaakaar ci ci ci ci wàllu ci wàllu boppam mu ñëw euh, diis ko paa bi paa bi defal ko ci ñaan mu soog a def départ yàlla def nag mooy li ñuy wax ne hasard amul man mosuma xam ni xamante ngeen yow tamit nga nekk sama xarit lii yëpp Thierno Nourou la Thierno Nourou moo def lii yëpp parce que man Thierno Nourou moo ma présenté ak moom Thierno Nourou moo ma xamante ak moom boolee ma ko ak moom ñu jóge fii dem Calaaga yàlla def tamit yow ci sa wàllu bopp nga ñëw tamit Thierno nuuru moo ma présenté ak yow mu ne ma maahi mu ne ma mu ne ma téel ma kii mu nekk tamit deful boppam géwél déedéet taalibe la def boppam ci biir kër gi kër Thierno day liggéey du li nekk lay def amul lu mu dul def ci kër gi mënon na wax ne man géwél la su ma damay tok sol sama yéré tok ñu may ma xaaliss ma def dédé mom bëggul sax xaaliss bëggul sax ñaan bu ñëwé day liggéey comme lépp lu ñuy liggéeyee lu ñi ñi di wut mom lay wut kon donc non man ma ng koy sant di ko gërëm ci loolu mom tamit mu ñëwoon fi e, nuy si ma def tamit mu tombe yow nga ñëw fi kon donc li du hasard hein non man tamit sama walu bop dama ci contane di ci li nga xamante ni vraiment eh, sant yàlla di leen sant eh, kon donc ma bàyyi ko ak moom ci kaddu gi mu nuyu paa bi mu nuyu leen mu nuyu waa Calaag nuyu Thierno Nour parce que lii yëpp nu Nour la voilà maa ngi leen di sant di leen gërëm asa salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu asalaamualeykum bandiraɓe dama njëkkee pulaar ma nuyu alal ji ci nga xam ne tey moom moom moo représenté fii sa maam nekk sa maam mu maam loola nga sëtloo ko tey moom moo toogal fii alal ji yoru géej sunu mag ju baax ji du dund nag alal ji Seydou Nourou Tall radiallahu taala plus de trente et mu nekk bokk néegam nekk xaritam nekk wëllëram nekk bras droit am fu mu nekk nii dara desewu ko seetul dara utiwul dara buggul dara lu dul digganteem ak boromam nga ñëw fii si këram fekk ko heure bi fii ba fi ñëwee téere yàlla bi alxuraanu karim jàngale mag du yàlla waaye yàgg nag yàlla ni koy gisee ni lépp lum la xelal wala lépp lum la digal wala lépp lum la ñaanal yàlla rus na ko gàntu ndaxte maanuteem julliteem ak wëllëreem a digganteem ak alaji Seydou Nourou Tall radiyallahu taala anhu jobba adama elimani siré samba demba ali moutar seydi bubu jang tal so farba samba Sifoma sifomo mo kanandal ɗiɓiji ñamoye kurus nanoye taltalɗi samma jangguinde daɗiɓe juuta ladali mawno hooremo ronata ko mbandu ɓoy toni wojja guitamo jeeja Nga nekk borom calaga cheikh oumar muntaga ɗa ha cheikh Umar. papay nuuru boo gisee mu taamu calaaga boo gisee mu féet ak calaaga calaaga féet ak moom dafa am lu mu gis calaaga ku nekk si famille Cheikh Oumar am na lu la yàlla may am na fu la yàlla orienté moom Cheikh Oumar Mountaga Daha Cheikh Oumar papay nuuru calaaga la ko yàlla orienté mu nekk ak ñoom nekkin bu rafet mu fasante ak ñoom kóllëre lépp lu muy def jiital ci waa calaaga ndaxte waa calaaga xam nañ mooy kan moom xam nañ waa calaaga ñooy kan furankoɓe noon mbima furankoɓe ne gandodiri e koye men hedde keeri guese addanta yimɓe remde fodde cammeje poye men kuccidira addanta en fodde kirade ɗum addani awluɓe wiide cattuɗo laamu woni gadotoɗo yimede gueɗe wiw halware wiw cheikh oumarul foutiw jobba adam ilman siré Sisul kenno waxul Cheikh Oumar sama baay waxul Cheikh Oumar sama yaay dafa ne Cheikh Oumarul fuutiw Cheikh bu fuuta yépp mu ut mbootu ak rogganti boot waa fuuta yëpp ku génnee loxo mu kiil waa fuute fuutanke yi ni ñu bëree xam-xam macha allah ni ñu bëree daraja macha allah da ngay def fii daara sa doomu baay def fi daara sa doomu ndijaay def si wet bi daara dara mënu leen boole lu dul nga tudd Cheikh Oumar ku nekk bàyyi sa martaba bàyyi sa daara ñëw wuy Cheikh Oumar bi ñu joxee Cheikh Oumar jox ko mission diine mu woo fuutanke yi fuutanke yi ni ñu bëggee tool jéeri ak waalo ni ñu bëggee sàmm ni ñu bëggee seen njaboot lépp ñu bàyyi ko dem wuy Cheikh Oumar ak ñoom kaay leen ngeen dem ci yaat boo leen dewee ngeen dugg àjjana Cheikh Oumar dong moo ko am si Fuuta bépp fuutanke boo dee surtout Cheikh Oumar nga lépp lu mu meroon meram jif na yow nag nga ut torche dugg fuuta di wër sa dëkku baay nga ñëw fekk sa dëkku baay dëkk la boo xam ne nii waa fuuta yépp ko xam boo fa demee it am nga wàlla sa wàlla bu fa demee jox nañ la ko ba mu mat sëkk am nga suufu jéeri am nga suufu waalo am nga gawlo am nga jaam am nga toolu jéeri am toolu waalo géey wàcc nga géey wacc nga nit bo bëggee doon dara da ngay delu sa don baay nit bo sabai, doon dara da ngay gessu sa baay xol sa baay ndax doonoon na dara fu mu nekkon bo fu ñëwé bo bëggee wax sa mbokk bo yëkëti sa loxo ñëpp na garma doomu garma du bur doomu bur, man bimu la xamé ba légui rëccuuma hasard nak amul sumla la xamoon lu baaxul wala sum la xamé won lu bon tay duma tok fi di wax papi ndjay moñu bolé Salif Demba moo di Ramar ibrahim Ibrahima tal. nga jëriñ ko nga tette ko xamal ko won ko yoon bi boole ko ay nit yu mag bu la yàlla fayee sa xol rek fépp foo bëgg a yegg di fa yegg ba desal yu ma jontaaɗo ndaarema baamu soodi manoore dimbawa leyɗele keeɗo goɗɗuɗe taw leydi baamu dimbanaaki komi soodi manoore yumma cancaɗo ndaare mo bammum soodi manore dimbowo leyɗele kewɗo goɗɗude haw leydi bammum dimbatake joom calaga jeeri joom calaga waalo koto jaam ñalle maɗa seydi gueyi ɓurol ko ndonu so neɗɗo tawan ɗum ala ko welata jomum sona wonde jaaso as jaam kadam li la senti wonci mom li man la senti wonci mom moo tax lii ni jotaay bi man euh, dafa ma jaaxal ma jaaxal ñëwam fii tey ak sa ñëw fii du hasard du hasard dara du hasard comme li ñuy wax dara du hasard ya nga naka doomu calaaga ñun ñu mu nekk suñu taalibe suñu sëriñ ak suñu wasila mooy Thierno Mouhamadul nuru moom mooy suñu aduna mooy suñu àllaaxira mooy suñu lépp mooy li nga xamante ni tey moom yàlla moo ma boole moom yàlla moo ma boole moom moo ñu boole ak yow kon donc tey bu yàlla defee nga ñëw fii moom mu fekk fii nga ñëw fii luy contacté la kii nag mooy suñu lépp nag parce que mag du yàlla mais yàgg nag yàlla comme li mu wax léegi diggante mag Thierno Seydou nooru moom moo wax ñëwum fii Seydou Nourou nee na ñëw ni fii ñetti yoon ci kër gi fii mu nekk fii ci fii ci nekk bi fii ci kër gi kon donc nag loolu xëy na mbugeel la ak yëg-yëg xam valeuru nit loolu nag ñun dañ koy sant yàlla mu nekk nag loo xamante ni moom ñu lañ koy ñaanal fan bu gudd ak wér yaram yaa ngi dégg moom ci boppam dañ koy ñaanal yàlla dañ koy ñaanal yàlla wér yaram dañ koy ñaanal gudd fan ak wér-gu-yaram loolu rek lu ñun lañ koy ñaanal moom mu yàgg ñu jiite mu yàgg ñu jiite xam nga maire bi moom léegi dafa kontaan bi ngeen waxee Seydou Nourou moom mu ñëw mu ñëw kontaan te ndam nu mu waxee Seydou Nourou jàpp si Waltaal nee na Thierno Seydou Nourou moom moo ko jox sëñ bi moom moo def diggante ma sëñ bi moom nag mu ngi génn si paate aljuma Madina Taal daara xale bi moom si la génn boo ma gisee fii kii mooy sama sëriñ kii moom may jàngal asko mooy li may tagg kii mooy yoro soo kii moom mooy sama sëriñ parce que ñun lépp lu ñuy li ñuy jàng suñuy waa jur góor dañu koy jàngal mais ñoom géeri aussi ñoom dañuy jàngal seen bopp moom mu nekk bibliothèque moom mooy yorosoo maa kii boole ñu kii boole maa kii maa kii soo boole moom mu nekk sama sëriñ di ma jàngal seeni maam même yow maa ngi ñëw sa maam même yow dinaa jàng fi sa maam bu xew bu rëy taxawee wala boo ma soxlee fekk damay taxaw tagg calaaga yëpp génne sa maam konk kii mu ngi dund konk alagi Seydou Ndour bii mu ngi dund kii mooy sama sëriñ moom nga fekk léegi mu uuf ma di ma jàngal ay document document ma ñëw di bind sama oto mu ngi nii ma gaare ma yéeg si kaw mu may jàngal kii nag nekk suñu njaatige as sens moo gën licence sance moo gën licence et puis électorat senegal fii les 65 sont des Haalpulaar ñu ñoo nekk Fuuta ñoo nekk Podor ñoo nekk diaspora gis nga son excellence li gagné, gagné. Le ko ont gagné Touba gañe ko ci bi Podor ak Matam bu ko fomp barki maître Ablaye Wad. Il trois jours pour recevoir portable bari nit bu bëggé am sens da koy xam yaa ngi bëgg am sens parce que xamna naa sa relation ci diaspora bi li nak mo la jassé li nak moy njaag li bokk réussir rek moy bak nga njaag en 2006 man ak Farba Ngom Saada Ndiaye Abdourahim ñu duggal monsieur Macky Sall Matam ñun ñoko jëlé hor xoor duggal ko Matam bobu Macky pularam sax setul Macky dafa jang pular pularam setul donc tu as largement le temps pour tu as largement le temps pour convaincre les Foutanké tu as largement le temps pour nous ne le au Fouta parce que la politique bi mu def ni ci porte bi rek lañ ko jaarale porte bi ko mu def dara ñu ko Foutanké mu ay gawlo ñu ñu won ko ne trois ans la def opposition mu jël réew mi ay ñaan ñaan ñoo ko sabab ñaan amul lu mu mënul yi baax yi nag yàlla rus ngi ñaan leen ñu bañ donc yaa ngi am sens Guèye Ndioro ñun ñëpp ñoo ñaan yàlla yàlla nañ yàlla defal sutura duniya wa oxra yàlla nañ yàlla defal sutura duniya wa oxra yàlla nañ yàlla defal susura dunya wa oxra bi jaahi sayyidil wujudi wa alamu suhud xam nga sax dama doon yii fan yëpp damaa xaw a jagadi waaye nag ni ma gis ma ne kontaan xam nga lu tax xam nga wax naa fi sànka lu gën a nekk ci àdduna maa nga xam lu la yàlla defal man man man xam naa li ma yàlla defal wallahi wal quraanil man man xam naa li ma yàlla defal man xaw ko xamul waaye man xam na allahu akbar muhammadu xam ngeen sànq bu ñuy waxtaanee ma ne ko ànd naa ak moom ñaar Ceerno ñaari fukki at juróomi at man ak moom ci néeg yàlla moo man ak fii lan moo nekk fii tambali fii ba fale ay tiire la fii maanaam boleeru la maanaam fii man ma taxaw fii maanaam maa ngi yor wantaay wantaay bi maa ngi yoon maa def ne juróomi at ma tëj buntu bi ma tëj saal bi maanaam ma dem ci biir ma taxaw ci ma téye ci man am naa li nga xam man xam naa ko ci moom kanaa yawmal qiyaamati wax bi moo bari rek maa ngi ñëw fii maanaa ci koñ bi xam nga wax naa la fii ñëw naa fii wee février 71 hatta yow mi na xasa am naa fii ci koñ bi maanaa ñeen fukki at ak juróom-ñetti at ak juróom-ñaari ak juróom-benn weer kooku du ñeenti pour am na li waxtaan ak moom waaye amul kenn ko soo ñëwee fi fekkula ma fi ma ci zakka bi amul lu xew aw déedéet boo nekkee sëriñ nag nga nekk sëriñ sëriñ sëriñ boo gisee ñu wax sëriñ sëriñ boo nekkee sëriñ da ngaa xam lan moo nekk sëriñ koo yaakaar sax yàlla la yaakaar walla ah kon nag su fekkee dangaa ñëw nit di ñaan maanaa dangaa bàyyi yàlla ci affaire am yow nga ñaan rek yow dangaa war a ñaan li ci des yàlla moo ko lakk waaye am na ñoo xam ne am nañu ko de am ah, déet am na am na am na am na damaa xamul kay ni koy amee waaye am na moo tax nag moom ñëw na fii moo tax soo gisee ma wax fii da ngay wax li nga xam ne ëllëg soo ko laajee da ko mën a wax moo gën asaas la asaas la mooy asaas maanaam ar ar comme ni ngeen di waxee ar siiw day dem yàlla moo xam gis nga keroog damaa ñëw fii maanaam jiite ji maa ji rajo bi maanaam teel ñëw mu ne ma Ceerno Souleymane bi moom ma ne ko naam mu ne fii télé de da nga am li ngay wax de ma ne ko man loolu sax laa bëgg man ma taxawee waaye bi ma falee nit ñi mu ne benn waaye mu ne ah yaa jiite ma ne ko ah yaakaar naa ko uy da nga yaakaar ma ne ko waaw loolu laa yaakaar de am na benn waaye maanaam mu téléphoné ma fari mu ne an Ceerno Souleymane gis naa la fii Souleymane waaw yàlla moo xooloon bani aadama noon boo déggee lagata xalak na linsaan fii kaba nit dafa yàkkamti nit ñi nag comme ni may faral di waxee sànq nit yi dañuy wax man kay nangam ak nangam ne gis nga yàlla xam nga sëriñ yi fu ñuy ramante ci ragal yàlla affaire bi foofu la de mun mun ngaa taraabiya nit maanaam téeméer yat li nga doon xuuc maanaam mu yëkkati yàlla jikir yi loolu jokor kenn yàlla on yàlla faaliwul loolu de moo tax alif lam mim zalika alkitaabu la rayba fii bu la uus bi rabbi yàlla borom xel yi lay waxal maanaam loolu lu asas bi mooy ragal yàlla bi yàlla moo wax laysal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghribi walakin al-birru man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'i wal kitabi wal nabiyina wa ata al-mala ala hubbihi dhabil qurbi wal yatami wal masakin was sa'ilina wa aqama as-salata wa atu zakata wal mufuna idha ahadu was sabirina fil basa'i wad darra'i wa hina al-basi ulaika alladhina ulaika humul muttaquna ko be gon hulbe allah ananani anani fuɗat allahu akbar woyi heejoyo heji eh, ñaan bi eh, nañu bay ɓe ɓenen yoon gis nga kii mbela bi lu mu wax dëgg la gis nga keroog bu ñëwee xam nga moom géwél lu da ngeen wax géwél xam nga jikku jikku jikku mooy nit xam nga man mag la maa naa ñëw na fi nu mu yëkkati junni mu jox xam nga xool xam nga yéen xamu yow yow sax xamula gafa def nii moom moo ñu ne ma yoo xam demee ma seet yoon waaye man tam ne am na li ma jàng foofu de waaw waaw waaw waaw waaw waaw eh? waaw te moom xali la juddoogul sax te nga soo ko gisee léegi maanaam soo ko laajee lu nekk mu nag xam nga amul rëy rëylu xam nga rëy rëylu baaxul gis nga léegi mu kii gis nga kii papam ku ko jur ak sunu papa ñoo bokk ndek ba yero yero mu ci xoolal ay moo tax nit ki kaara si rek xaw ma ni ngeen wax maanaam koo xam ne dafa tabe tabe li ngeen di waxee moom de xam naa ne su amee kër kër bi da ne xam nga am bu ñu nekkee penku fekk nga xam ne maanaam jëmel foofu man foofu laay weer xam na ko man foofu laay weer aha kooku mooy njaati ko su ma njaati man man xam naa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 الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض يسعنده إلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهيرون بشيء من علمه إلا بما ساء وسيكون في سماوات الأرض ولا يؤوده حفظهما ولا العظيم لو أنزلنا هذا القرآن على لرأيته خاص المرسل من خشية الله وتلك الأنهار نضربها لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرمع والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن الوهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله يعمى والله الخالق البارئ المصور لا الاسماء والحسنى سبيل ولا عرض ولا زلك اللهم إني أسأل بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماء يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا من قامت السماوات يا أنت كن ويكون سبحان الذي بيده ملكوت كل ولا سنين سبحان الله القادر القاهر القبير العزيز الجبار الحي القيوم بلا مؤين ولا زهير استغيثني اللهم هذا الدواء ومن وهذا الجرم وألئ ولا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة ولا حول ولا قوة إلا بالأولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على سيدنا محمد والد من الطاهر وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم وأذن الله ونعم الوكيل من الله اللهم صل على نور سيدنا محمد لما أو خاتم لما سبق ناصر الحق حق والهادي إلى سرادك المستقيم وعلى آله حق قدره حق قدره حق قدره حق قدره حق قدره حق قدره حق قدره حق قدره حق قدره حق قدره ومدل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام وسلام وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين